su ma ko yenoon nu ma yenoon eh, eh, eh, su ma ko yenoon ah doy na doy na yaa ngi ah, ca boppam daal bi dinaa la kaw lépp waaw la. Siteu rek. Siteu rek. yal nañu rek. ndeysaan nee na yal nañu rek te Papa Sow gars yi ñu ko may dara. Ah. bilaay walaay def na lu nekk pour a daw mais mënul nekk. day ñëw bëre ñu duma ko tànk ba soobee yàlla. ndeysaan Siteu ñu jaral yi bak Sëriñ Bamba lépp. ndeysaan bàyyi suñu liggéey ñëw taxaw fii xam nga. taa suñu moto rey suñu bopp moom mbër moo ñu ko jaral. parce que ñu ko ji. dara di jaamu nga mooy daw suñu yaram ñun daw ñu yoolee. lu leer ba mu jeex. ak Sëriñ Bamba daw jàmm rek. jaajëf dóor duma daan après lamb après lamb lay xam ñun ñooy kan la waa Sénégal ne xam ni Siteu mbër léegi si génn yàggatul moom Basirou mais si dara dafa dafa pièce gars yi parce que guraaw laa gis parce que si dafa pièce gars yi parce que dafa doon ngémboo fële mais ren si ta ngémboo fële demee kër maamam la ngémboo si combat bi da koo jëloo sérieux kër maamam fu mu ne nañ ma ni ko yi la nekk ma Basirou est-ce que ñu dem ci kër maamam parce que dafa moom la nekkee en fait ba Basirou dama dama jàngal lu bëri ci combat bi nii dama xam ne si dafay bëri li nga xam ne moo di combat boo xam ne as risque la ndax waa jàmmagoon dañoo booloo mais dama gis ndaw ñi dañuy ah. dégager loo xam ne seen yaram yi tey jii damay ñaanal li nga xam ne moo di jàmm ak li nga xam ne moo di calme parce que lii ñu ko di commencé fii nii ba suñu ko jëlee ba nga xam ne moo di koy sat gëm naa ne dootul yomb hmm. te loolu dañuy ñaanal comme nee nañ ne làmb ji dafa bëri li nga xam ne moo di violence donc taw ñi dama leen di woowaat nañ nañ calme andiwaat li nga xam ne moo di jàmm Siteu seen mbër la nañ ko ñaanal bu mënee na dem def li ñu mën passé aussi la passé aussi la même chose aussi hmm. nañ ñëw ñu andi li nga xam ne moo di jàmm parce que jàmm la ñuy ñaan jëlal ndaw ñi jëlal xale jigéen ñi jëlal jigéen tey hmm. li nga xam ne moo di ay bagage loo xam ne ñun ñëpp koy ñaawlu vraiment parce que tey jii waaye est-ce la bi moo aye eh, yalmin bi sita borom dëkk bi man la demee est-ce que dañuy dem ah, yoo yëngal dara du sita waaye saret bi mooy xolo oto engin xolo ay ni gars dañuy dox sax di dem la ala man waa waa jàmm gën seen kër def maa dégg waaw boo dee kii xanaa waaw loolu la kon li ñu seedal ni comme ça si de caméra waaw jéem kon pour ma sax bu wér yóbbu nit Thank you. combat bi ci gra waaye combat bi ci gra ñu baal leen wala ki daa mel ne waaw loolu kese amul leneen yéen pare ngeen wala ñu pare faral la da nga daw bay sax xanaa est-ce que kon pare ngeen nag ah <laughs> waa jeerat na <laughs> man booy jàmm nga ne dama leen a bëgg man sëñ Baye Fall lañ yal min nee naa la Siteu def na booy yëpp ay yal min léegi léegi booy yëpp léegi lañ ko ah man non booy man booy dañu dara booy jàmm nga ne dañu dañu koy di ñëw di salte suñu dëkk déedéet dootuñu ko nam chaque jour da nga naan jàmm nga néew nii jàmm nga ñu fi nekk ay booy dynamique ñoo fi nekk a terrasse ay booy am jom ay booy nga xam ne chaque jour dañuy dem daayra lundi ba dimanche kon ñooñu amuñu jot def dara mais nit ñi ñooy jóge ñoo di salteel loolu dañ koy bañ léegi moo tax combat bi doo fi dégg lu ñaaw doo fi dégg dara dañuy dem ci kàttanu yàlla daan Papa Sow jox ko cëru mag ba pare daan ko. waaw yalmin bi. waaw comme man dama jàpp ni combat combat bi mënu ko yokk ndax boo xoolee ba Siteu di bëri premier combat xam nga deuxième combat am la Siteu bëri. kon eh, maanaam daal buñ doon def cadre yoon dañuy bàyyi xale bi mu doon def kàttanu la koy dagaan ñu ngi koy dagaan bu fekkee ñu ay taalibe suñu sànni lañ ñu ngi dagaan suñu borom moom may ya moom may seetal ndam seet bi tey eh, noo gisee tey mbir mi tey ni mu yeewoo waaw seen mbokk jàppale rek pare ay mbokk yëpp taxaw laa jógee si la si la Bambal ñun Serigne Touba moo ñu teete wan ñu yoon dañu xam yoon muy waxee balaa moo wax sëñ bi lay tudd jërëjëf jërëjëf Serigne Touba moo ñu teete si la lay waar rek rafet na ana mbër nu mu yeewoo sant rek sant ak Allah le moral est bon Ah, ñu ngi soulagé ay wax booy jàmm gën ñu dal confiance dem ci jàmm ñu ci jàmm suñu mbër lan la ñu wax dañ ah. sangu ba set sol lu rafet ñu dem stade ñu yëngal ci kaw mu yëngal ñu suuf jeex loolu la ñu digal digal ñu leneen ok waaw sànq yaayam gis na ko muy dugg

nga li nga la kii nga koy soxla. non pas chaque jour doo ko soxla. sa sa combat. sa combat moo koy soxla. waaw bu nekk wax dëgg la rek.